تبكي الأراضي عليهم كالسماوات هق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen site internet Rafah TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di gisal ci nuyoo bi ak ziar bi saaxibul fadila wal wasila Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaane yàlla gudd fan ak wér gu yaram waaye noonu lañ koy ñaane leen mboolem njabootu Serigne Touba gi adi njëkkee kàddu yi inna lillahi wa inna ilayhi tey ñu ñëw fii ci Baqia ñëw fi tey ngir soppe boo xamante ne taalibab Serigne Touba la woon bu koo xamante ne ñu bëri xamoon ko ci dëkk bi xamoon ko ci réew mi mu nekkoon jëmm joo xamante ne naam at yim am ci liggéey bi bariwul ndax xëy na booba ak léegi bu ñu koy takk ci ñetti at lay toll ci métier mi mu nekkoon nga xamante ne ci la ko ñëpp xamee yàlla dogal mu nekkoon taalibi Serigne Touba boo xamante ne ak taalibi fu mu toll daf ko daan wane waaye tamit ay kàddoom ak taalibi daf ci daan feeñ ba taalibi yëpp bëggoon ko kilifa yi bëri bàyyi woon ko xel lool ndax liggéeyam bu am solo ba tax na tey jile bi yàlla dogalee ab dogalam ci moom démb muy Moustapha mbay ñu gën ko xam ci Mbaye Sapar Sapar coloré gum am ak Rafa TV ndax gis ngeen li nga xamante ne moom moo di seede si nga xamante ne doon ko seede ci Rafa te ñu ko doon estati bi mu bàyyi ko euh, ci àdduna ak léegi ngeen gis seede si ñu amoon ci moom tax ba tey jilee ñu jóg tey ngir fas yéene ànd ak ay mbokkam naqar wi waaye ànd ak mbokk taalibe yi li nga xamante ne moom moo di naqar wi jëmi ci jëmm gi sell jooju di Moustapha Mbaye euh, dugg ci li nga xamante ne moom moo di baqiyam euh, teewee li nga xamante ne moom moo di denc bi ba lépp loo xamante ne lu fi am la rek ndax xam ngeen ne kilifa yi bari gis nañ leen fi gis nañ fi ku ci mel ne Serigne Djili Niang kennal Serigne Touba romb nañu léegi ak ku ci mel ne Serigne Mountakha Gueye mi nga xamante ne jàngkatu xasida la ñu gën ko xam Serigne Mountakha Gueye fëlku ak yeneen i kilifa ñu ngi fi incha allah rabbi ci kanam tuuti des na jël tamit ay kàddu yu seede moom mi nga xamante ne moom moo di mbay sapar sapar nga xamante ne ah, liggéey bi mu doon liggéey lépp bégal doomu aadama yi la waaye lépp mu tegoon ko ci ak taalibé lépp mu tegoon ko ci al insaniya muy nite waaye lépp mu tegoon ko ci nag bëgg ah, taalibé Serigne Touba yi kontaan ah, kon ñu ànd ak yéen ci kanam tuuti lay doon ñu am ak yeneen i réaction yi ñu jël muy ay seede ci nit ñi بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وحزلة عن شيوخ بالإشارات mbokk yi euh, téléspectateurs yi bàyyi xel seen site internet Rafah TV comme ni ma leen ko waxee woon sànq ñu ngi ci biir Bakhia euh, ngir teew fii ngir denc mbay mi ngi a xam ci mbay sapar sapar mu nekkoon jëm joo xamante ne kenn dootu ko présenté ti maa ngi taxaw ak koo xamante ne nag responsable politique la xam euh, xamante ne xam nañ ne teewaayam fii du hasard kon sëñ xaas ma jox la kàddu yi nga nuyoo ak téléspectateurs yu Rafah TV waaw ku baax ñoo ngi leen di ziare di leen ndokkeel baax a baax di wax ne mbay mi ñu ñaar ñoo bokk benn baay muy sama rek di sama xarit di nit koo xam ne ku bëgg sëñ Tuubaa la ku bëgg sëñ Fàllu la it ku bokk la parce que ba suñu ëttu maam bi nga xam ne mooy ëttu maam Ablaye Mbaye sëñ Fàllu heure bu ci mbay duggee luy joxe ak bokk luy defar bokk lay wax man mii daf maa def mag def ma lépp yàlla dogal na képp koo xam ne nga bokk ci famille bi sax bu déggee ñaari ñoom jafe-jafe sax danaan ma maag yow danañ fa dem waxtaan ak ñoom pour ñun mën a déggoo di ko ñaana daal suñu borom yàlla bu ko cat jiitu te ñii fi ñëw ñëpp kenn ku ci ne mbay moo fi indi ñun indi wuñ fi kenn ku fi ñëw rek jëmmi mbay la fi kon daal li mu gën a soxla mooy ñaan yàlla na ko yàlla gën a xaare àjjana te li mu fi bàyyi yàlla ci yàlla loxoom. waaw comme ni nga ko waxee rek mbay moom vraiment dafa nekk koo xamante ni fi mu ñu féetewoon ñun suñu nday sax ak suñu baay féetewuñu fa woon ndax boo ko say rak nekk tubaa te guddeeg bëccëg mbay dañu woo lu rafet rek lañu wax wër na Serigne Touba man démb la ma woo ñetti appel jotuma mu bàyyi ma fokaal barki Serigne Touba fekk yoon boobu du ma ko wuyoon xañ sax lii laay dégg mais doon na nit koo xamante ni vraiment li ma wax suñ groupe famille bi démb rek nee naa leen mbay fi ma taxaw man sama papa taxawuma fa sama mag ma bokkoon ndey ak baay taxawuma fa ndax nit la koo xamante dafa sore woon ci ñun barki Serigne Touba waaye di ko ñaan rek cat bañ ko ci bàmmeel ndax dëgg yàlla nit la koo xam daal sama cant gi rek bi ma ko tuddee nga xam ne ñëw def ci lu am solo nga xam toujours du toog deux fan ñaari fan yoo xam woowu ma ne ma cuun defal li defal a neex mooy mbay image image Touba da doon sàmm ñi ñi xam ay artistes lañ nekk fii dañ daan woo duñ dugalee dara mu woo neen sa waay xam ne yéen Touba ngeen dëkk bokku leen ak ñi dëkk i image lépp loo leen dugal rek da ngeen xam ne bis dana ñëw da ngeen fi jóge te loolu wanewaat te tey moom gis na ay vidéo mu dem ci laa fanaan mais mënoo seetaan benn vidéo mbay boo xamante ni ko seetaan ne mbay suñ borom xaar ko àjjana daal waaw jërëjëf mbokk yi ki mooy Thioune Boutique moom itam mbokk ci euh, artistes yi nga xamante ne dañuy yëngu ci dëkk bu sell bi di Touba waaye ñoom itam ñu yor drapeau Touba fu ñu dem rek di wane ak euh, kenn ci ñoom nag bàyyi ko fi tey jile muy mbay sapar sapar ñu gënoon ko xam mbay sapar sapar waaye jëmaloon joo xamante ne rek boo jaxasoo ak moom xam ne taalibe Serigne Touba la lu mu am Serigne Touba ku ko gënal fu ma wax ci àdduna boo gisee euh, loo ma sa wax sax ci yoon wi da gis mu jël kàddoom tontuwaat ngir lan ngir taxaw drapeau boo xamante ne daf koy wane toujours muy wax taxaw ngir Serigne Touba yawman min al mawla saniyaati ah, ko gis eh, barab bi ni mu feesi xam ni baax rek am solo waaye mu doonoon nit ku yàlla baaxal koo xam ni lim daan dox mooy reetaanloo doomu aadama yi di leen bégloo te eh, wax dëgg yàlla loolu moom ko koy def eh, amuñu safay xanaa di ko ñaanal fi mu jugee fa mu jëm daxal ko ko foofu yàlla xaare ko àjjana Serigne Fallou teeru ko ndax ku baaxoon la ku yàlla baaxal sama jàng yi ma mujj a def rek di sargal soxna Baali taxaa ñëw na ci wax dëgg yàlla foo ma saana tëjee moom mu reetaan kaf wax dëgg yàlla bi ma ko mujjee gis bi sama jàng jàllee kër Afa la mu ñëw ci xewoon yi ñëwee rek daanaka lu gàtt gàtt reetaan na ma kon yàlla ko yàlla xaare àjjana ko amoon yitte la amoon nag nit ñi jàmm euh, yaatu woon ba pare ouvert dëgg yàlla xeebul kenn ku am bis mu demal la kon yàlla na ko yàlla xaare àjjana ci barke Cheikhul Khadim wax dëgg yàlla ku baax daal la ku baax la dëgg yàlla. jërëjëf sëñ Bassirou bari bagaas lay bàkkoo mooy euh, Bass Fall kenn du ko présenté ci dëkk bu sel bi di Touba sëñ Mourtada Diouf yooyu tam xam naa ne euh, doom la ci sëriñ Abdoulaye Diouf jànkatu xasida waaye tamit day yëngu ci xasida yi moom itam ñëpp xam ko ci dëkk bu sel bi lan moo nekkoon relation bi nga xamante ne amoon nga ko ak euh, kii di jëm jëf bàyyi ko. waaw comme ni nga Bassirou Fall waxee rek nit ku baax la woon li ñu mën a seede moom mooy bëgg sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi toll na ci moom foo xam ne foo mu fekk jàngkat yu ndaw yi nii rek day warloo ñoom leen addee xasida yi fu mu leen fekk ba bi mu fi bis bis bi mu fi jugee bis bi ko jiitu ci guddi gi gisante nañ man ak moom ba ñuy waxtaan xasida yi muy jàngantu di di di wax ak nit ñi di kaf ak ñoom di ree bi ñu xëyee yàlla jël ko liñ mën a seedal ci moom daal mooy ku bëggoon sëriñ bi ku bëggoon sëñ Tuubaa la bëggoon ñooñ bi jàngal sëriñ bi foo ko fekk suñu waxtaan ci sëñ Tuubaa mu tàggale ko ak sagoom alalam du ko boole kenn ku tabele woon it ñu mënuñ leen lenn du di ko ñaanal rek sëriñ bi teere ko ci àjjana yi gën a kawe irsaadi qablahuma min jaalibaati quruurin ma shaqawaati ji taxaw ak jëm joo xamante ne ñu ngi wéy ci sëriñ Kéba Thiam mu nekk uh, directeur Daaru Rahman Bass xam naa dañ ko jox kàddu mu def seede jëmee ci li nga xamante ne mooy jëm sell ci waaw di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan suñu borom yërëm ko te jéggal ko xaari ci àjjana yi gën a kawe barki Cheikhul ñu naan ko Moustapha Mbaye di eh, eh, ab jullit di ab murit di ab taalibe xàqan ku bëgg Seexul Xadim ku am ngërëmal Seexul Xadim ak waa këram tamit dañ koy ñaanal yërmande suñu borom wàcc ci kawam man de sama sama sama wëllëre loon sama lépp loon wax dëgg yàlla bu ñu amee naqar mooy dem rek waaye nag ñu delluwaat ci suñu borom ñaanal yërmande suñu borom yàlla xaare ko àjjana ñi nga xam ne ñoo njaboot bi suñu borom bàyyi ñu xol waaye ku baax la woon ku gore la woon ku bëgg Serigne Touba la woon